asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum soppe yeeg xarit yi asalaamaaleykum fu waay mën a toll ci àdduna bi du nu seetaan ñu ngi am bànneex bu mag a mag di xam ne yaa ngi ànd ak GFM rawatina télévision Futur Média balaay lenn nag ñu dooree nuyoo bi ci sunu PDG président directeur général ak képp koo xam ne yàlla dogal na nga xëy ci xëy si ci kër gi. noo ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax rek nga dal ak jàmm di remercier bu baax groupe Pape Cheikh. ndax ñoom itam ñun bu ñu xëyee suba teel ñoo nuy bégal ba faf nag wareef agsi daal dee àggali la ca desoon la ca desoon ba tey dañuy tàmbali nuyoo bi wéyal ko ci biir dëkk bi dem nuyu sunu ay kilifa diine ak kilifa aada mboolem xalifa général bu nekk ci biir réew mi noo ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la wax nga dal ak jàmm di la wax rek noo ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm yàlla defal la sutura yàlla yokk la macha allah ba nga yàgg ci kanamu njaboot gi nu ñoo ñaanalee noonu noonu la ñuy wéyalee ñaan bi ba tey. ci biir maison d'arrêt yi di ñaan yàlla yooyu maison d'arrêt yàlla na ko suñu borom def maison de repos toogaay bi foofu yàlla na sedd guy ci ñoom te itam jafe-jafe yi ci am fan yi ñu ngee ñaan yàlla suñu borom mu saafaral ko may borom dëkk bi doole boo xam ne dana ko mën a àggali ba tey nag wéyal nuyoo bi ci biir hôpitaux dispensaire ak clinique képp koo xam ne ma nga nekk clinique nekk ci hôpitaux yi nekk ci dispensaire yi noo ngi koy nuyu di ko wax rek di ñu ngi koy ñaanal yàlla bu fekkee ne feebara ko fa bàyyi noo ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex waaye nag faaw daanu remercier ñi nga xam ne ñoo leen accompagner bu ñu remercier ñi leen accompagner ba noppi daañu remercier képp kuy docteur médecin aide assistante képp ku nekk ci foofu nu ngi koy remercier bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm jamono bi ñoo waxtaanee am nañ nee nañu jamono ju nekk ak la cay xew ndax boo nee ci jàmm ba toog tal def sa émission am na ku nekk ci tiis ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ndax ñun dañuy tàllal loxo rek di ko ñaan te am yaakaar ne dana faj aajo yépp ku nekk ci tiis yaa rabbi yàlla na la fajal sa boobu tiis jox la bés yu dàq yooyu waaye tam faaw dinañu ñaanal ñi baaxoo woon di ànd ak ñun mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaanal waaye dawdi yi yàlla defal leen jàmm yàlla may leen aljana yu kawe yooyu nga xam ne dañu koy njort te xam ne yi am na ñu ngi leen koy ñaanal yal na yàlla atte leen ci njëggalam ak yërmandeem saa bu nu dikkee fii góor gi ci faan daf noo jege lool dañuy sukk ci wetam di sàkku ñaan di ko wax ne noo ngi koy ziyaar bu baax a baax maam Cheikh Tidiane Sy Al noo ngi koy nuyu du nu fàtte njabootam yëpp fàttewu nu kenn kenn kenn ajaratu fat si da baax suñu njëkkee bopp jërëjëf xam nañ ne yaa ngi nuy seetaan waaye nag bu nu dooree yi dafay daal di nuyu ndey yi nuyu bàyyi yi daal di dem ca Touba nuyu xaritam ba mbokkam ba sunu maam yi bopp maam eh, Sidi Almaxtaar noo ngi koy nuyu bu baax a baax sëñ Sidi nu ngi koy nuyu bu baax di nuyu njabootam yëpp fa tabaarakàlla macha allah sëñ Bas Abdou Khadre sëriñu Ndoye Bane waaye sunu sëriñ la ñu nitam mm-hmm. kon boog nuyu na ñun ñëpp gërëm ñëpp sant ñëpp. di leen wax ngeen dal jàmm ci seen émission wareef dinañu jukkeeti faute bi ndax ñu ngi wax ne le linge sale se lave en famille. Mhm. te ñun ak yéen sami la dañ ci conscient di ñaan yàlla ànd bi ak fusion bi yàlla na ko suñu borom yàggal. di nga nuyu mère Ndoye. Oh, di nga nuyu Adja Dior. Oh, ajaratu Astu Jara di nga ko nuyu. Oh, Adja Ramata di ko nuyu. waaye Adja Ndeye soxna Mbuub sunu maami bopp. sunu yaayu bopp. man mère yi ay ay xam na ko man yi mère yi rek laa bëgg de. samay ah. camarade de promotion ñooy sa Mm-hmm. maire yi ñoo jar di di di waxtaanal. door ni Cheikh Sidi Mokhtar ngay ngay njëkkee Mbàkke moom ngay njëkkee. xam nga damaa waroon suba gu ma xëyee dem yóbbu àddee ji. la comme nag damay xaw di sori. dëgg may jox ndoy baan kii bi rek. macha allah mu koy yóbbaaleel. macha allah <laughs> door nañu daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag leen son Mandela tëpp koy jaloore. Mm. di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aaday di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum. mu yàgg fi lool lool lool te wér maam yàgg fi loo fi yàgg doyul mm-hmm. di ñaanal itam mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Almakhtar mm-hmm. mu yàgg fi lool ak mbooleem ak lu mbàkk yu gépp ñu ngi leen di ziar di leen joxaat seen wàccuwaay lu bare bari mm-hmm. di nag sama maam kabara jibi anta booy yaaxa jaa yi dellu seeti na maa ngi sàkkuwaat ñaan nuyul ma yaay dégéen mama Nafi ak yaay Kinushka maa ngi leen di ziar lu bare bari di nuyu nag yaay Astou Diarra mère Ndoye ak uh, yaay Astou Seck ak bari sama soxna sa maa ngi leen di nuyu lu bare bare bari te di leen ziar di wax nag ndoy sama góor que ne namoon nañu la mm-hmm. démb moom manqué nga ñu lool lool lool waaye alhamdulilah mm-hmm. ndax nii la boo nekkee ci liggéey bi rek ñu jàpp feneen fi ci des loolu mooy àdduna di waxaat nag ni maa ngi nuyuwaat waa ëttu sëy waaye tey moom suñu doomi bopp ñun ñëpp mm-hmm. dafay anniversaire muy euh, magu mbuub doom ci ndey sene ba faaris bu mag boobu ñu ngi koy ziar lu bare bari di ko wax ne dundal loo dund doyul yàlla na nga fi yàgg loolu te wér mu jërëjëf yaa rabbal alamin Diop toogaay bi jekk na bulo bi rafet na booy piir sañ waaw mën ci bii boor ak bële boor ak bële boor tri boor ak ba boor. mais jàmbaar nga nag ndax gis naa ne yaram bi xawul dikk waaye fexe nga ba ñëw. waaw ah, waaw ndax nee mm. yi dañu lay <laughs> liggéey bi moo ah. demee noonu. ziyaaral nu ku tedd ki daal dugg ca waa piir. waaw waaw la. Ah. jaajëf ñoom ñoom ñoom moom para moom para sëñ Moussa si <laughs> <laughs> waaw ngi ziyaar kilifa diine kilifa aada yi di mm-hmm. santaat yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. di sant sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre di ko mu yàgg fi lool te wér di waajal sunu màggal googu di la kat uh-huh. incha allah yàlla nañ ci yàlla yu boog jàmm ak salaam di ziar waa uh-huh. sëñ sañu xoor sëñ si se moom parent Jibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub uh-huh. ak euh, sëñ Baddo Dieng ak bépp notable boo xam ne yaa ngi yeewoo ci dëkk ba ak sunu imam ba sëñ Moustapha ñuy wax rek ñu ñaanal ñu bu baax a baax ñu fas yéene ñëw rek dabaatu leen di sant di gërëm nag sama waajooju baara l baara l'africain mhm. euh, xam naa ni assuré na ndax samedi bu jot chaque chaque samedi ñuy ànd ci rajo ba mhm. ñu ciy jàppale bu baax a baax ñu koy sant di gërëm bu baax dëgg la yàgg ngeen a liggéey moom waaw waaw nañ comme daf caa baax nag dama gis ne da nga am groupe boo xam ne mhm. bu waree fi waree am dem ak ñëw dafa am groupe am na benn groupe yëmma ñaax waaw waaw ah, yëmma yëmma yëmma waaw bu baax a baax am nañ am nañ këram am nañ équipe boo xam ne daal su kii rek ñu jël ca kenn ñëw teg waaw maanaam jamono yi bu ma neexee dem congé duma jaar ci Bouba Ndour ci yow laay jaar kon <laughs> bu dee Bouba mu ne non non demal liggéey liggéey bi ci sais yàlla a le kon bokk dal leen ak jàmm mbokk yi ndoy mm. baan jëf kontaan nañu mm-hmm. man démb ba nga dikkulee damaa wéet ndekete yoo ku xëy sax di la ñoppati boo ko gisul dana la manqué eh, léeg-léeg mm-hmm. bu ma bëggee wax dara day daal di dëggal tagal gi tey gisuma la grand bubu wala boo feebaree sa yaram du neex pour grand non non non déet ma jamono tataa dégg nee na jamono ju ne àlla xew dëgg la dëgg la ajaratu dégeen chimère baabu ñu ngi lay fóon uh-huh. mu ni jamono ju ne ak la cay xew waa man xam nga su ma neexee nekk boy waaw rappeur su ma neexee nekk pa su ma neexee nekk diplomate dëgg la waaw dëgg la moment bu nekk ak na ngay ñëwee rek waaw na ngay ñëwee tey da nga namoon def mu woyof daal waaw waaw woyofal waaw waaw wooye woyofal nga macha allah macha allah costume baa ngi ci bi ma jërëjëf mbokk yi kon nag dañuy daal di xuus dugg dugg ci actualité bi xam ngeen ne actualité oblige te bu ñu ko waxee faw dañuy dellu ci li nga xam ne mooy suñu thème thème bi ñu ngi ci nekkoon semaine bële ba ñëw dugg ci semaine bi semaine bi lañu koy tëj waaye nag dañ leen di remercier balaay leen ndax seen ay témoignage da caa am solo loolu yéen dangeen di def témoignage foog ne da ngeen di wax li ci yéen waaye ñun ñi togg itam ci ci ci plateau bi dañ ciy jàng te dañ ciy mën a waxtaan gën a yaatal waxtaan bi coow yi nekk ci biir kër yi moom la ñu doon waxtaanee dangay gis une famille entière mbokk mi famille boo xam ne ñoo bokk ndey bokk bàyyi bu ko defee ñu dëkk ci xuloo nit ñi jaaxle dañuy dem di xuloo xuloo ba kenn dootu leen àtte mm. xanaa loolu doy na waar nga gis koo xam ne kii magama bokk ak moom ndey ak bàyyi bu nu bokkoon ñëw ci benn xew daanu toog ci xew bi ba ñibbi kenn du ca wax ak moromam di nga gis koo xam ne itam dafa jël doomam jox ko keneen waaye ñaawteef yi am ci diggante bi dem na ba daal di nanguwaat doomam loolu yépp itam doon traumatisme yoo xam ne dañu koy commencer xuloo da koy commencer waaye fu muy tàbbigee yow ci sa bopp doo ko xam bi ñu commencé di tem ba léegi tem nañ ko temaat tem te du jeex àdduna ni mel da ngay tem ba sonn daa dee teg say kaaka ku weddi laaj Adja Degen Chimère Babou dafa tem ba sonn daa di ne Eva ñëwal nga toog man dem naa noppalu nekk ci noflaay kon boog macha allah ñu ngi koy ñaanal jàmm waaye di wax nag mami li ngeen. dugg siwaat nañu ci thème bi mhm. xuloo yi ci biir kër yi du fi jug nit ñi dañuy xuloo mag ak rakk dañuy xuloo mhm. yaay ak doom dañuy xuloo mhm. mais seetlu nañ ne ba nu commencé ba tey dañuy interpeller responsabilité parents yi dëgg la parce que kër goo gis mu baax mag ma ca la bokk kër goo gis mu bon nee nañu mag ma ca la bokk ni ngay gisee ku tas këram itam noonu ngay gisee yaay joo xam ne décision bu ñuy munti jël ca peggam lañu koy jëlee nooy uh-huh. baax uh-huh. gis nañu yooyu uh-huh. yooyu xeetu yaay faw nu wax ci itam uh, ba nu commencé ba tey nañ leen cofal parce que am na yaay yoo xam ne décision yi bu ñu koy jël sañuloo même boo nekkee bitim réew mhm. jël décision te moom bokk ca mhm. xam nga kooku tasul këram mhm. nu ñu gisee ki tas këram noonu la ñu gisee ki defar këram am na ñooñu tam ñu ngi leen di sargaal mbokk yi nga mooy li ñu waxoon démb rek euh, tegale bu jubee ca la jiitu la dëgg la am na ci yaay yoo xamante ne tabaarkàlla macha allah. même njaboot gi lu ñu dëng dëng dëng dëng ñoom ciment lañ dëgg la ña ngay raax rek nanguñ fenn fu tasaaroo ña ngay boole ña ngay jàppale ña ngay defar kon ñooñu itam faaw ñu delloowaat leen jukkal te it nag moo leen war ndax xam nga ki nga xam ne ñépp yaa leen indi mhm. soo defaree mu baax boo yàqee mu yàqu gënale bi daal lañ war a wàññi bu fekkente ne ngeen alal la mhm. alal ji jaru ko ndax doom ji yaa ko jur waaye itam daf ci am ndekete yoo te yaay yoo xam ne dañoo ragal seeni doom xaw ma nag man ragal gi ci lan la ndax doom ji nga sukk jur moom yaakaar naa ne waroo ko mën a ragal mhm. ba mu lay jaral mu yàq sa àdduna mhm. te am na loo xam ne yàq sa àdduna la ndax li ma la wax démb dara àdduna jaru ko dëkk ci koñ bu ñu nee wooy wooy sama ndey nga yër sa bopp ne fan la kër gee ah waaye duggaat naa tëdd waaye ñii da jaruñoo atta ji ndax chaque jour ñu def bu baax koñ boo xamante ne kenn du fa xeex waaye bu biir bi amee rek sa kër la loolu daray àdduna jaru ko loolu nag moo tax yaay yu baax yi nga xamante ne ñi ngi boolewaat seen njaboot mm. ñi ngi sukkaat ci suuf di leen joxaat seen wàccuwaay te di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a mm-hmm. ndax yaay daal mooy gérer kër ba kër ga lépp rafet mm-hmm. jigéen moo yor kër góor joxe dépense rek la mën jërëjëf <coughs> moo tax bu ma gisee ndeysaan nee nañu njaboot goo fi ñee mës nga koo yërëm mm-hmm. léeg-léeg nga gis koo xam ne danaan doomam yi nga xam ne lu ñuy def dañu koy tàggu lu ñuy nangam fa mu jaar ak ñoom a tax doom yi di jaar moom foofu ah du dëgg ndoy baax dëgg la mais nag ah. euh, affaire bi dama koy ñëw këpp këpp ko këppati ko seen kaw sax bu baax bëgg nañ ñun yooyu la ñuy ci yaw parce que donte da jàpp sa jàmbur fan yi <laughs> coow yi ci biir kër yi lépp jigéen ñi la dëgg dëgg la jigéen ñi rek la mhm. mère bala doom yi jigéen ya la mhm. njëkk ya la jabar yee fa sëy si la dëgg la problème boo dégg ci biir kër gi kër yi rek jigéen ñaa ci ñi ngi ci biir imagineel naka ngay gisee jigéen jeeg jeeg boo xam ne dafa sëy si ci biir kër mhm. euh, am ay njëkke yoo xam ne li may xas-xas souvent njëkke yi am na ay njëkke yu baax yoo xam ne ñoom ñooy defal hmm. seen jaboru càmmañ da koy faral di wax itam waaw bëggul bëgguñu maanaam maanaam dañuy moytu waxu ndóoy baan yi hmm. ba tax ni dañuy toppatoo seen jaboru càmmañ yi hmm. di ko toppatoo di leen toppatoo di leen toppatoo ba nit ñi yaakaar ne sax dañ leen a ragal mais or ko dañuy daw coow wala ñuy def la leen war mais yow seen càmmañ ndaw si napp na jëkkër ji napp joo xam ni tey ji su sa sa su sa njëkk bi wootee téléphone soxla frère soxla boo xam ne entre famille la uh-huh. xam nga sunu famille dafa am dëgg la famille maanaam ñi sant baan ñi sant Traoré uh-huh. tey ji sa frère su la doon woo uh-huh. pour wax ak yow yoonu jabaram nekku ci am na loo xam ni ci seen famille ci seen biir la dëgg la jabar du lépp lay xam parce que mën naa xëy suba génn ca génn ca say ba yóbbu leen léegi nag soo leen bëggee waxtaan ci seen biir mhm. ndaw sa di lijjanti pour xam la ngeen waxtaan ci seen biir mhm. am na ci jëkkër yoo xam ne ñoom dañuy dugal seen jëkk jabar ci genre wax yooyu ba soo wootee daan ne ko sa jëkkër laa soxla mun la li nga koy doyee wax ma ko hmm. soo ko ko waxul lii may wax ni ay histoire la yoo xam ni yuñ may nettali yoo xam ni mm. euh, nit ñi dañ koy dund soo ko ko waxul mu day ñuy raccroché téléphone bi léegi nag su waa ji ñëwee ni ko ah sa sœur sa sœur Eva woo woote woote woon na fi mm. may wax ak moom moom sax damaa coupé ba yokk ci yoo xam ne sax defoo ko sa frère woo la yow téléphone ni la dégg sama jabar nee na woote woon nga fi man ko non non dama bëggoon ñu waxtaan ñu ñuy def ba yóbbu sama yaay màkka exemple quoi mun la mais man nee naa leen ba taay loo leen may waxati dee leen soo leen ma jotul dee leen ko wax sama jabar. y a problème parfois. cas yooyu dafay am bu ko jabar ji euh, dal euh, jaree baax na. Mhm. waaye bu xawee safaanu itam kenn. am na jabar yoo xam ni. waaw kenn du leen dugal ci genre affaire yooyu. wax nga dëgg ay seytaane lañu. encore. toujours ku góor ki war naa yar jabaram yar goo xam ni tey jii man sama rakk bu jigéen wala sama mag bu jigéen war na maa mën a woo ñëw sama biir kër woo ma dugg man ci biir néeg ba am lu muy waxtaanee ak man loo xam ni sama yoonu jabar nekku ca mais ma dolli la waaw est-ce que war na xaar ñu yar ko nit dafa ko xam ne yaa ci war a ci téye sa cër yaa ci war a péeg dugalul baax suñ la ci dugalul waaw bu ci dugg dëgg la suñ la ci dugalee nga dugg ca xam ni yaa ngi sëy ci kër ga mm-hmm. loolu mooy problème bi am na ci beneen cas boo xam ni fi mu nii information à chaud la dafa benn famille boo xam ni euh, benn góor jigéen koo xam ne dañ doon sëy divorcé am ay doom nag bi ñu divorcé ndaw si dem kër magam bu jigéen maanaam kër gu mag la dem kër gu mag ba magam bu jigéen moo fa ne di gérer kër ga ndaw sa dem fa di jóge ko daanu mag ju jigéen ji di kër yi bopp la seen kër gu mag gi waaw moom seen kër moom jigéen bi waaw seen kër yi bopp la dem fekk fa magam bu jigéen hmm. magam bu jigéen di ko jàppale ak njaboot gi di ko jàppale ak njaboot gi ba ba sëy ba tas ab diir hmm. ka mu tasaloon ñëw jëlaat ko mais bi mu ko jëlaatee ndaw si génnul kër gi waajee sëy si waaw waaja nag nekk nekk góor gu seytaane eh. fexe ba diviser sœur grande sœur bi ak petite sœur bi diviser leen ñuy dem di dem mujj gi kër ga benn njël la woon mujj gi ñuy ber seen jël ñoom mu doon ñaari cin ci biir kër gi ñuy dem ba waa ji situation commencé baax mooy ku góor ki situation commencé baax mu yóbbu ndaw si màkk ci màkk gi yóbbu màkkaam googu ndaw saa nga màkk de mais ku góor kee ne ci kër gi di gaara gaarawaale waa kër gi naan leen yéen amu leen dara doo leen dem màkka moom mi sëy si ku góor ki maanaam di leen tendance di leen tendance xoolal xam nga di leen di leen di leen tendance ci biir kër gi di leen tendance ci biir kër gi di leen tendance di leen tendance di biir kër gi mhm. ba ba ba xam nga maire bi di ñu seetaan ñun di tëju ci biir néegam di ñu seetaan di jooy di jooy jooy yi metti ba ba ka jóge màkk ñëw waaj nekk fa di maanaam di di di puukarewu dem màkk bi di ko bàkkoo di ko bàkkoo ba daanu fa crise cardiaque faatu waaje waaw moo mujjee crise cardiaque moo faatu léegi nag nag nag wam jëndoon ak lekk yam jëloon pour nganale nganale gu rëy moom lañ koy dajale filmé nii moo tax nit ngi def loo xam ne tey jii nit ngi def loo xam ne tey jii du lu gën ca moom kawteef la muy def sax xamu ko nekk ci biir kër jàmbur mhm. xajjale ñu bokk ak ndey ak baay te yow nga nekk góor wala nga nekk jigéen loolu ca boppam moo jaaduwul rafetul de xanaa dañu koy ñaanal yàlla sunu borom baal naa ko nga ko baal waaw sànq dafa mel ni dama yëg lii naan la baal ko baal ko mu baal naa ko baal naa ko yàlla ko sunu borom yërëm oh. faatu na de mu mel nii ndekete nit loo jëf-jëf lu baax di nga dem loo jëf-jëf lu bon di nga dem mhm. jëf lu baax jëf bu baax ba dem moo gën de ah amul sax ma dem te ñëw xam nga voyage boo dul yóbbu bagage amee. waaw freetal bala ngay egg. dëgg mais fi ngeen tàmbalee woon mooy que jabar ji nga xamante ne dafa ñëw rek moom. Mhm. kuy woote téléphone ci ngay daj. waaw rek moom mu dëkkee raccroché. Mhm. xam nga raccroché doy na. waaye man li ndooy wax ma ci ñor. muy baax mooy sos bi ñuy sos ci biir. Mhm. mën nga raccroché nit ki. mais bu ko sosal. mais dañ ciy boole nag di la sosal. te am na ci góor ñoo xamante ne góoru benn nopp lañu nañu moytu benn nopp ci famille. ku ñëw wax nga ne moom moo am dëgg dëgg del déglu ñaari côté lay benn pàq la ku wéet gàddu yóbbu nañuy déglu mm-hmm. sa rakk ju jigéen dafee woote wala sa mag ju jigéen dafee woote mm-hmm. saaga na ma wala lii na ma demal ci sa mag ju jigéen ngeen toog ngeen waxtaan waxoon naa la fi Eva ne la mm. ex jabar mën naa am waaye ex frère ak ex sœur musaguma koo dégg ex nday ex baay mus ta am li nga xamante ne nag mën naa tàmbali tey jeex suba mm-hmm. foo ci yem mu neex mais li nga xamante ne day woy illaa yow mi di rafetal ko nañuy moytu góor ñi nga xamante ne nii dañuy yàq kër dafa am mhm. dafa am góor ñoo xam ne dañoo manqué na ñett wu ñaar wa réer mhm. ñuy wër dërëm ba te kenn du ko gis léegi ñett ñi naka ñett wu ñaar wa réer ah. dërëm bi dañ koy wër kenn du ko gis ah. xam nga kiy jëndee fukk jaayee juróom dedduwaanee ñett yi ñaar dërëm yi mu leble ko kañ lay fayee ko du ko mës a def ci àdduna dafa am góor ñoo xamante ne gis nga sa jëkkër ji ngay sëyal mhm. bu ko nettali sa problème mu famille waaw waaw bu ko nettali sa problème mu famille lu nga ko ko lu rafet wax ko ko lu ca ñaaw dencal ko sa bopp boo reyanteeg sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay bu ko nettali sa jëkkër ndax mën na far mën na sot mën na gisee neneen ndax am na ci góor ñoo xamante ne duñu xalaat mm-hmm. mais li nga ne ndoy baan est-ce que jabar jooju di ko yar ah kay xam nga lu tax ku xamul suur naa danga nga naan nikk ca loxo ba téye sax wi naanug yuur bu ñëwee ba ci doq ba bëgg la dee faxasal jërëjëf mm-hmm. Mm-hmm. wax ci rafet na gis naa ci couple boo couple boo xam ni jëkkër ji ci ci benn ambassade bu ne fii lay liggéeyee xam nga ci lan la jàpp jëkkër jabar ci jabar ci dafa dafa dafa xam ni yaaye jabar ji am na jëkkër de yaaye jabar ji dafa am far jëkkër ji dem ba gis ko teg ci bëtam wax ko ko ndaa doom ji weddi ko mun ko heure tel dem fii ñu dem mu fekk xale bu jigéen gis yaayam ak keneen ku dul papaam léegi la waaw mhm. yaay jabar ji waa ji gis gis gis gis nu mu tuddati ànd ak jabar ji ca milieu ba mu gis euh, gorom bi mu gis ko xale bu jigéen gis ni kee nee ñu tooge kee du papaam te nañ tooge ñaan ñu bëggante rek ñooy tooge noonu léegi nag jëkkër ji ci loolu la téye ko ci loolu lu ko neex lay def dafa am benn yëf bu ma gëm mhm. sama gis-gis la ma mi xëy na daama ci fekk si mhm. wala nga wax ci sa sa xalaat li nga xam ne sa ndaya koy def mhm. li nga xam ne sa ndaya ko doonoon wala moo ko doon du yow kooku du yow mhm. tu a ta propre personnalité mhm. du parce que sama yaay def lii wala moo meloon nii wala wala wala que moom li mu doon def dama koy gàddu mhm. du ma ko gàddu nanu mais xam nga loolu tamit la nanu jël nanu jël ki ci ligne bi ba noppi dafa mel ni kooku kooku na nañu waaye li may def fu mu ne nii xam ngeen lan la soxna soxna si nanu dem kër aram jàppale ba noppi waaw bu nu yëree kër aram jàppale gannaaw mardi bu nekk def ñuy bu ko ne mista waaf de ah? ki ne libaas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ngay dox soxna yi bàyyi leen ma <laughs> xam la rek yàgg ngi bëgg a dikk soxna yi bàyyi leen xel ci kër aram jàppale dafa am produit yu baax mhm. yu mu ñuy jox man loolu lépp lu am caviar daf ma amal solo nañ leen yër ba xam daal di dellu si ci place. ak madame Waf ngeen jëf mbokk yi am nañ yaakaar ne yéen a ngi toog ci bureau yi duñu seetaan waaye yëf yi tàmbali na doon nañu bëgg woo te yi gën a tar woote leen ci 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee di ngeen mën a waxtaan ak Eva Tra ànd ak équipe am Mami Diop ak euh, inspecteur Ndoye Bane Mami jóob saa bu nu waxee jóob dañuy bëgg ne Mami jóob jóob dégg naa loolu la. waaw waaw boo koy defee ñett sax mu neex. <laughs> mami Diop Diop Diop. Diop Diop Diop <laughs> waaw eh, inspecteur. ñu ngi woon fa am solo de. waaw c'est que nit ñi c'est kër yi nañ nañu bàyyi di gérer ay détails. Mm-hmm. surtout mair yi. dëgg na ak taaw yi jigéen ñi. Mm-hmm. am na ci loo xam da nga koy gis. Mm-hmm. nga xam ne lu jaarul mais. nga xam ne lii soo ko waxee. mën naa yëngal kër gi. nga bàyyi mu sedd. bu baax bu baax xam nga. su fekkee lu jar wax la nga woo ka nga xam ne moom nga ko seqal dugal ko ci néeg yéen ñaar ngeen wax ko su fekkee sa jabaru doom la nga yedd ko comme ni nga yeddee sa doom très bien tegal loxo jëlal ma kii ci ligne bi ne ko bismillah allo dem na xam nga du ñàkk léegi nga yedd sa jabaru doom comme ni ngay yeddee sa doom bu nekk ci kër bi sëy allo jëlal kii allo. allo. allo salaamaaleykum. dafa mel ni soxla nañ Babacar fii ci kaw. waaw Babacar day moom. Mhm. waaye moom Babacar day taxawaalu rek. waaw dégg nga. Babacar bu demul daayira mi ngi nelaw. <laughs> nga soo nga nga yedd ko comme ni ngay yeddee sa doom. Mhm. mais mairie seen doom yi lañ gën a bëgg ke seen jabari doom yi. waaw loolu am na. te dañ koy ma ci kenn koo xam ne doguma la boo sàgganee mu ne nga toggal doomam waaw yaay toggal doomam yaay yóbbu yaay gàddu ndap yaay waaye dañ naan la te soo mooy du yàgg ba doom ji ne sax yaa ko toggal waaw wala am na soo demee ci ci ci ci dans ci village waaw dañ ngay dañ xar xale yi jigéen dañuy fóotal seen njëkk yi mhm. ma dinaa doon sa njëkkee nga doon ma maag yow ñu doon ay moroom mhm. ngay nekk sa kër jëkkër di sëy man ma nekk sama kër jëkkër di sëy nga yenu sa yére sa yëre jëkkër indi ko sama kër man ma man ma fóotal mi mel ne man yow nga yow nga nekk sama sama sama njëkkee jabar yow nga jël sa yére ak sa yére yi jëkkër indi ko sama kër pour sama jabar fóotal la yow ah yooyu jox te soo bañee kër ga tas soo bañee ñu xas la jëlaatal ci lii soo ko fóotee ñu xas la soo ko fóotul ñu xas la bul fóot dara <laughs> waaw man yéem a neex ci yow yépp <laughs> mais looy fóot jëkkëram ak ci ligne <laughs> ah jëkkëram fóot ay sol ay yëre bi tilim di nga jël ki ci ligne bi de waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam allo <laughs> allo waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam kan laay waxal ni. Ndoye Bane da ngay waxal. waaw namoon nañ nga démb mu manqué ngañ. waaw bu baax bu baax bu baax. <laughs> ça sant yàlla mu leen mooy jaajëf waay ngeen fi yàgg. amiin amiin wax lu am solo si euh, li yi. waaw. mais am li xew si yi nga xam ne. Mhm. Mhm. da ngay gis ko am doom. Mhm. indi ko si kër jabaram. jabar ji jël ko rek def ko wujj mm-hmm. te gisu yaayam moom ci ñu war wujjee sax gisu ko bu ki jot mu dem jënd piis mm-hmm. ñëw séddale ko ay doomam seen ànd kii de turandoo moo ko yónnee di nga gis ku xale bu am fukki at jëndal ko piis mm-hmm. xanaa daf siy jën daf siy siy ñaw daf si rideau daf si darab ndax rek bañ la jox lu ñaaw lu nekk ñu teg ko sa kaw boo génnee li fa paap wàccee ñu ko kii de néew nee nee na diw ma toog naa si kër. Mhm. xool sama ma ko waxee sama xol day jeex. Mhm. dañu dem ba ni sama paap kii de dafa yor photo bu ñuy wane ni kii mooy papaam yow jural ko man su ma demee ba am photo bu may wane naan kii mooy sama paap kon ma dem seeti ko. Mhm. jël ma rek bu xëyee suba bu demee marché temps yi kii saa bi xewee. mu dem jënd kii saagam ñoo ni kii dama koy sol pour bu may xeex man lay xeexal de boobu man aw ma sax fukki at ak mhm. su ma takkee sama chaîne teg ko ñu ñëw dagg ko sànni si mbalit mi. Mhm. ñu toog rek jël samay rek ñu ma bokkal bàyyi teg ko sama kaw. def bi suñ sama parti dafa daan tukki rek moom ndax militaire la def bi sama parti jóge dem benn mission dafa xëy suba dem ñu si ngoon si ñu xeex ak man mhm. xoolal yaa ngi ñëpp yàgg li ma bëgg wax yëpp mënu ma ko wax waaye nag yàlla tata Mami ak tata Eva Tra yéenay sama doomu nijaay bu ma ñëwee yi ngeen di soo rafet na bu ma ñëwee jërëjëf dinaa ñëw ngeen ngeen jox ma sama sagaram jàng wallaay yaa ko moom ñëwal jël si lépp ñu yëppi la <laughs> ñëwal jël si lépp bitim réew laay wootee nag ndeysaan waaw maa ngi wootee Bretagne ma bëgg a wax yëpp mënu ma ko wax mhm. merci beaucoup ndax sama xol daje ko dund mhm. Mhm. jërëjëf waay biir kër yi li fi xew lépp. c'est c'est émouvant nag. doy Sénégal nit ñi yal na leen hmm? yàlla may xolub mu ñaa hmm? gis nit ñi li ngeen est-ce que xam nga nit a ngi dëkk ak nit ci biir kër muy def ay yëf nga jàppee nit te booba xel mi tukki na. le dommage mooy dañuy jël rek euh, yaa ngi ree jël koo xam ne moo soli sagar def ay mbir takk ay pot ñu ne koo koo feebar mm. Mm. mais ñi feebar feebar bi gën a bon mooy feebar bi nga xam ne sa la nekk mm-hmm. nit ki mënu koo gis ñëw ni la ci rëpp yóbbu la ci hôpital mm-hmm. ñu ngi lay teg ci kër fekk sa xel mi tukki na yàgg nag ñoo la jàppee nit waaye dootoo nit nañ ma baal ci baat bi ñu nekk ci mbedd mi dofuñu de dëgg la ñenn ñi dañoo yenneeku seen responsabilité teg ci suuf dëgg la bëgg a noppaleeku waaw ñenn ñi famille bañ bokk lañ bëggatu ta bokk dëgg la xamuñu nu ñuy def ñu gàddu seeni sagar mm-hmm. sama maam daf ma ne woon ñett ñi bu ñu dofee day naqaree xam ban ak ban ak ban jongama bu dofee day sol gaalam nga naan ak mën a sañ sa fekk dof na bu yàgg borom alal bu dofee <laughs> mbaa daluma <laughs> borom alal waaw bu dofee uh. lu mu def ñu ne alal jaa moo bari ci moom baa du day jël rek di maye déedéet day def ay yëfi dof mais comme soxla sa alal duñ la wax dëgg dëgg la borom baatin bu dof wala borom barke bu dof uh. dañ naan leer gaa koy feeñu fekk dof na bu yàgg Mm-hmm. kilifa gu dof ci biir këram ay toj toj rek lay def dana ma rey mm-hmm. am na fi yoo xam ne seen xel dem na bu yàgg am na papa yoo xam ne seen xel dem na bu yàgg wallaay Diop ndax yenn def def yi kenn mënu ko def ci biir kër mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy dem bay génn seeni doom di génn seeni sët googu mbañeel laa mënul xam lan la mhm. Mhm. kon kooku wératul xel mi dem na bu yàgg mhm. nañu xoolaat tamit yenn yi lan moo ko waral gis nga man damay wax ma ni gis nga gis nga nañu nañuy moytu waaw gis nga feebar bi ñuy wax ci réew mi man dama jàpp ne ñi mu dal dëggantaan mooy ñu soxor te leen li soxor la ndax mënoo soxor a soxor a soxor ba soxoree ki nga bokkal benn ndey ak benn baay mënoo soxor a soxor mais li gën a tas kër yi benn meer moo ma ko wax démb gis nga sa jabar sa doom bis boo génnee jabaram ji mu bëgg yaa sa kër da koy toppi da koy luyee li ànd ak moom dem nga ñàkk sa doom ñàkk sa goro wax nga dëgg booleel fat li Ndoye Bane wax léegi dafa am solo jëlaaleel ki ci ligne bi asalaamaaleykum aleykum salaam sëriñ bu baax bi ñu ngi lay ziar naa ngi sant yàlla bu baax jàmm rek léeg laa leen bëgg a wax rek mhm. seen émission bi neex na waaye am na ñoo xam ne yeneen ngi leen di wax asalaamaaleykum. olof rek dañ ciy tàyyeel dëgg la ba dañ koy dagget daggetee dagget daggetee baati olof yi mooy waral ñuy sonn waaye ku nekk lim am rek la mën a joxe suñu bopp waaleykum salaam gis nga nit ñi mhm. jërëjëf biir kër yi dañuy xam ni sëy sëy jaamu yàlla la dëgg la te sëy ci boppam moo yëngal kër yi mhm. Mhm. jeeg bu ñëw ci biir kër gi sëy si jéeg bu bu bu nekkoon ci say ak mu tas jéeg bu mu tas demaat kër baayam yëngal kër ga fa nekkoon maire bi ci biir kër gi di sëy ay doomam wër ko ak ay wujji peccor goom lépp ci biir sëy sëy sëy te lépp yàlla moo ñu sant ñu takk soxna dëgg la fase daggan na sëy daggan na mhm. waaye na rafet mhm. nit ñi dañuy fàtte suñu borom souvent mhm. te koo xam ne soo ko fàttee fàttewu la soo ko fàttee fàttewu la soo ko oh, oh. fàttewul <laughs> looy def yoon na ma nga ca nga koo fàttaliku bala mu laa bala laa faat euh, mais mais jigal yi jigali laasara jigali nee na yaa ngi koy rey nee na Alaaji Ndoy Baan mm. waa noonu la ci suba ba léegi noonu la sunu borom nee Ndoy Baan namoon nan ko soo ko fàttee na lu am fàttewu la rim lu am solo soo ko fàttewul fàttewu la tey nga koo fàttali ko bala mu laa faat dëgg la mhm. léegi nee nga jël téléphone nag yow fu mu ne nii jamono jii waaw maanaam dund gi bëgg àdduna mhm. Mhm. soo bëggee àdduna àdduna bëggu la nga bañee bugg la mhm. nga bàyyi ko te bala mu laa bàyyi mhm. ngay fàttaliku sax bisub dee bàmmeel li ngay bañ a dégg dee bàmmeel ba nga fàttaliku ca di ca def mhm. bala ñu la caa def ñett yi ku koy fàttaliku di nga rafetal nag sa diggante doomu aadama yi jëlaaleel ki ci ligne bi jël ko jël ko ndax ñu kii ndax ñu transition <laughs> waaye ma Eva dina ma laaj allo salaamaaleykum allo waaw soxna si waaw soxna Ndoye Ba ñu ngi ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. yal na yàlla nag ziar. jaamu maa ngi nuyu Tata Eva. Mhm. ñu ngi lay fay. ak soxna Marie. ñu ngi lay fay lu bari. Tata Eva sopp naa la lool yaa Tata mari ñun ñoo la raw fuuf ñun romb nañ la romb nañ la. bëgg naa leen torop sama biir xool naa leen. ndeysaan jërëjëf baax rek. maa ngi déglu chaque jour émission bi benn émission mosuma cee raté. gulee tey nag la première fois ma woote ci télé bi mm-hmm. ndax tata Eva depuis ta ba léegi damay suivre émission wareef mm-hmm. ndax seen thème yi moom macha allah ba nga am na thème solo ya nga xam ne nii moom kenn mënul wax lépp mm-hmm. dëgg la ñun dañ cee nekk ay xale di ci jël repère di ci jël ay royukaay yi nga xam ne ni chaque jour dañ ciy jàngat lu bari mm-hmm. ndax yéen a ngi ñuy yee moom ci lu bari macha allah. comme ni ko mami Diop waxee rek nee na euh, tegaleen ndab. Mm-hmm. bu jubee rek ndab bi jiitu moo moo moo jub moo tax. yi ci topp kenn du ko werante wallaay yi jub. xam mm-hmm. naa moom wax bi moom dafa deseel yaa wax dañoo mën ta wax bu baax dañu leen a topp torop ba leen ci suñu biir xol. am naa nag numéro mami moom su ma ko mënoon a am moom ndax daa nekk sama mag bu baax. dëgg la. bu bul kitee ñu jox la numéro waxee njaayee rek moom. damay bëgg bëgg dugg ma ne ah tata mami moom ak tata Eva ñu ngi ñuy jokkatoo nii de. déedéet bu ngeen dekkee bu ngeen ko werante. ñun am nañu macha allah rek macha allah. jërëjëf bul quitté ñu jox la numéro am. Ah, wallaay ku weddi laaj madame njaay mi ci biir kër gi xam ngeen ne moos. Mhm. Euh, du du génn mais kenn du ko gis. <laughs> te boo duggee ci bureau ba day xeeñ lekk. mënul man jaaxal na ma de bureau bi sandwich lay xeeñ. ak beñe bi muy denc ci biir. toujours <laughs> beñe chaque jour laajal. allo jëlaat leen ki ci ligne bi. allo allo dégg jël ko jël ko jël ko allo. allo salaamaaleykum. allo. ah bisimilah waaw kañ waxal ak waaw ajaratu umu xayri njaay ca ca ca Fass goro Aïcha Traoré ñu ngi koy nuyu nee na mi ngay seetaan émission bi yaayu Ibrahima Ndiaye mhm. Mhm. Adja mu nuyoo bi yàkka moom yàkk aw a Ndiaye ñu ngi leen di mhm. nuyu bu baax a baax waa Fass yi aha li ngeen doon wax am na solo dikk leen ci voilà léegi toujours ñuy yox rek maa ngi ci jigéen ñi surtout kër gu yëngu ñoo ko yëngal kër gu yëngu ñoo koy ngëb loo ci wax doyul voilà loo ci wax doyul parce que nee naa la su doonul maire bi ña ko ña ña ñay sëy ci biir kër gi am na ay maire yu maandu yu baax mhm. yoo xam ne dañoo toog bëgg rek ay bëgg seen jabari doom yi bay bëgg dee mhm. mais doom jabari doom yi ca boppam ñoo jubul ñoo du def lu baax bëgg a teg seen jëkkër lu mu àttanu cas de figure yi ñoo bari ñoo bari mm-hmm. da ngay gis goro bu baax waaw am jabar joo xam ne xamul fu mu ko jëlee c'est ça nga gis jabar ju baax am goro boo xam ne rëccu na lu mu doon duggee ci biir këram te mm-hmm. ki nga xam ne dafa bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi askanam bàyyi lu mu amoon ñëw dugg sa biir kër ne la sa doom bu góor la bëgg kooku deseelatu la la dara lingeer mais tamit mais tamit euh, ndooya ngi wax que ne am na jabar yoo xamante ne ñoom ñooy ñëw tas kër gi mhm. mais am na famille yoo xamante ne yow boo ko xamoon doo war wàcc fa mhm. <laughs> lingeer jëla ki ci ligne bi ba pare nga dikkaat ci famille asalaamaaleykum <laughs> allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah allo soxna su baax si ñu ngi lay ziar soxna su baax si ñu ngi lay ziar. waaw waaw waaw d'accord waa xaaral ma wàññi xaaral ma wàññi télé bi. waa kay ndax jox déggante bi neex moom dafa branché dafa daaj. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw léegi vraiment dama leen di remercier. jërëjëf. bëggoon participer ci émission bi man sax tàmmuma di wax ci télé bi. Mhm. mais des fois j'ai envie de dire des choses. tout à mhm. fait. parce que am na jigéen ñoo xamante ni nit ñi dañu jàpp ni jéeg buy sëy ci kër rek. yow yaay ku bon mhm. ba nga xamante ne da ngay nekk si biir kër yore sa rakk jëkkër yi ñu lay jiiñ ñu bon ñu ne parce que dañuy jàpp ni ku def lu bon rek lu bon amee rek jéeg ba lañ koy jiiñ mhm. man sëy naa ci benn maa ngi sëy ci benn kër boo xamante ne sama rakk jëkkër yi dañoo ne sama jëkkër da tànn ànd sa jabar ak ñun mhm. sa jabar bu gënul kër gi ñun dañuy génn kër gi hmm. ñoom dañoo xëy xëy rek di génn kër gi dem ci koñ ba ne dañu leen a génne dugg ci kër yi ne dañ leen a génne ñu gëm leen uh-huh. ma jooy bay bëgg a dee na sama jëkkër dem leen jëli leen soo leen jëliwul sama dara dana yàqu sama jëkkër dem jëli leen ñu bañ duñu ñibbisi ñu ne leen comme da leen a génne dana leen fat mais yàlla comme dafay àtte yàlla dafa def benn jour fa mu doon fañ ko fatoon foofu ñu ne ñu ñoo ñun ñoo bon ñoom ñoo ko fat hmm. muy découché comme découché bu mu doon def suñu kër day doxi ba trois heures du matin ñëw di tëb miir bi benn jour dafa tëb mur tombeeg am ku gënoon di si guddi gi di dem ci toilette yi mu gis ko mu ne ko yow kii kan la mu ne man la diw mu wax turam mu ne ko yow kon yow lii nga nekk ci sama kër gi yow kon lii nga def ba ñu génne la lii bëree ci kër ga mu di ko sàcc di ko dem jaayi ba maire bi moo ko yenu gàddu ko ne ko léegi nag sonn naa man mi la fatoon sonn naa dama la yóbbu ci sa kër mag nga baalu ko àq ba mu ko indee ne ko baalu sama àq te nga toog ci kër dafa ne du ko baalu àq di du ba du baalu magam àq mu dem beneen kër ñu fataat ko foofu de ce fait dañuy def des choses yoo xamante ni mhm. dañ koy bëgg a porter le bi seen jabaru mag yi mhm. ils vont seen jabaru mag yi ñoo gën yor naa ci koo xamante ni dafa ëmb magu magam bu jigéen jël si ko ne ma dama ko yóbbu ma ne ko kii fii la ëmbee bàyyi ko fi ba mu wasinee mu ne ma maa la ko gën a bëgg sama rakk la ñu ñoo bokk ndey ak baay gën a bëgg daf ko yóbbu daf ko yóbbu ne daf ko yóbbu ma wax wa mu ne dama koy yóbbu ba benn jour xale bi bëgg a dem di xam-xamloo ko simuler di def lu ne ba sama fa fa ñun ñu doon waxtaan sax pour ñu nangu ëmb ba ba ñu commencé di bëgg a bëgg a nangu ëmb bi ñu gis muy indi yeneen góor ci kër ga. sama jëkkër ne ko comme yow ñu ngi négocier pare guñu ngay indi yeneen góor ci kër gi sa mag bëgg na laa jël fas naa la jox paas nga dem mais bu muy dem eggagul fa mu jëm ma daba ma sama sama njëkk bi woo ma téléphone na ma yow yaay jeeg bu bon. yow yaay jeeg bi ba yow noo mën a defee lii yore sa jëkkëru yar sa rakku jëkkër ba mu ëmb nga di ko génne kër gi mais yow ma dofloo yow ne ma ma fi barki démb boo da koy jël yaa ma ko gën a bëgg muy simile fii xam-xam lu ñu yóbbu ñu indi la ko nga ma dama koo génne kër gi mu jël téléphone jël tànkam porte à ku ko déglu mu ne ko dama ko génne kër gi xoolal ma loolu ils ont tout fait dañuy def des choses yoo xam ne pour ma faire porter de chapeau bien sûr dama dem ba ne sama jëkkër ma ngir yàlla ma am jàmm nga jël say rakk nga uuf leen man dama sonn parce que tey boo xamante ni du dërëm du alal du dara sëy te yàlla tax te a ci bànneex benn yoon ma ngir yàlla nga ba ma ma dem mu ne ma duma la fase parce que ñoom bu ëllëgee dañuy ami seen jëkkër ami seen jabar uuf seen njaboot duma la fase kon nag je veux dire que y a des gens yoo xamante ni dañuy nekk ci néegu sëy ci ci seen biir kër di di def yu bon di ko jiñ seen jabaru frère yi mhm. yu bon a bon a bon dañuy dem ba sama kër papa ñu may boole ak moom am na un jour dañu dem ne sama papa man samay dem kër génn kër gi damay jël sama doom yi génn leen yóbbu leen wóoluwuma leen ak sama doom mais j'ai vu des choses yoo xam ne koy def sama doom te dama ko wax dama ko mën a wax sama papa parce que bu ko ma mu sot duma ko mën a wax sama papa sama doom diw na diwal naa ko mburu ci beurre ñu jël ay bant bale yu sew rucc ko ci biir mburu bi xale bi xamp mburu bi am lu koy jam mu ne bon bi na mag bon bi ubbi gémmiñ bi gis bant bale ci biir bi ci bëñ bi ñu ubbi mburu bi gis ci la ñu tàllal ci ay bant bale mu ne ma kaay xool li ñu defal sa mburu doom bi kaay xool kon nag des choses yoo xam ne da nga da naan ñii dañu bëgg a rey sa doom su ko defee dañuy jàpp ne doom bi xëy na moo moo nekk moo tax sa sëy bi toog moo tax sa jëkkër fase wala dañuy bëgg sax rey sa doom pour sa jëkkër mën la fase donc y a des choses yoo xamante ne ngeen baal ma xëy na mënu ma wax ci télé parce que mos naa woon doy baan benn yoon. bi may deuxième fois may wax. mais man dama souffrir ci négocier ba nga xamante ni on m'a fait beaucoup de choses ñu fa ñu porté loo ma le chapeau dama doon bëgg gën sëy bi ba leen ak ba ko ak ay rakkam man ma dem toog parce que ku am yàlla yàlla ñàkk yàlla am yàlla. am nit ki am yàlla ñàkk nit ki am yàlla. massa mais yàlla daf ma suturaa ba sama jëkkër dafa vivre. Euh, doom bu dafa vivre ñàkk nekk ak ay waajuram mm-hmm. mu ne ma li ma vivre ba ñàkkuma nekkuma ak sama waajur mm-hmm. bugguma samay doom vivre ko dama lay téye ngeen baal ma xam naa nag vraiment euh, mënuma wax ngeen baal ma su ma amee nu juum ngeen ngeen jéggal ma te xam ne ne dama ci jublu woon rek participer wax lu baax bokk ci émission bi jërëjëf yal na leen yàlla fay amiin yaa rabbal alamin te mu muñ loola Mhm. nee nañu boo dee muñ da ngay muñ daay man doo ko mhm. saxal daay man doo ko saxal ab lii mu wax waaye nag ndooy baan tegal loxo ci lii parce que y a des femmes qui souffrent lii mu lii mu wax ne mu am Sénégal sonn nañ torop lii mu am Sénégal lu bon lu am ca kër ga ñu jël ko jiiñ la ko ne yaa sëy si lu ñaaw lu am ca kër ga ñu ñu jiiñ la ko ne yaa sëy si lu réer sax ci kër ñu ne yow seen paquet fan moom mu egsi léegi saa ñu jiiñ la ne lii lu bees la ci kër gi mhm. yow boo ne lii lu bees la ci kër gi te ni tey soog dikk sa biir kër lu muy wax ñu bari ngi ni xool di ñu seetaan lii lañ nekkee ci dëkk bi li ndaw si wax ñi ah, ñu bari bismillaahi rahmaani rahiim ñoon ñu ah, wax ci wax ñi wàññi nañ seen télé yi ñii génn nañ fay fay lu télé bi lii ndaw si wax feebar ma wax moo am ci kër yi moo am Dakar moo am dans les région moo am am moo am fépp ah léegi bii ban la ni lu ma wax keroog ah. gis nga jéeg gi sëy ci kër gi te ñu xam ne ñi ngi sëy te yàlla tax di góorgóorlu te yàlla tax mhm. soo defee teranga dineen laxas xas soo ko deful deneen laxas xas comme boog defal li nga xam ne moom nga mën te jéem a déggoog jubook sa jëkkër te yàlla tax laaj ma ban jeeg laa yërëm mhm. doy baan ñu wax ci jeeg bi nga xam ne dafa ñëw dugg ci loxo jëkkëram sëy dong taxoon ko jug mhm. nobel tax ko jug bëgg ànd ak jëkkëram tax ko jug jëkkër ji la mu amoon amatu ko kooku du dégg jàmm ba yóomal xiyaam dañu naan ba mu dikkee ba tey sunu kër gi dafa dafa la mu amoon amatu ko ba mu dikkee ba tey boroom këram xanaa gisoo ko dafa futti ah jigéen tam day souffrir de lingeer wax ci cey waay dëgg la sama yaram a ngi daw ndax daf ma delloo si ci sama bopp lu bare bare bare ndeysaan xanaa xamoon ne jeeg tas na fi sëyam te ñàkk bëgg euh, bëgg rek am jàmm ak bëgg des nopp jëkkëram ak bëgg góor gi mu nekkaloon am jàmm li des ci àdduna mu dem mu dem kooku dafa teg njëwam dem sama yaram a ngi daw du fi jeex <laughs> man xam naa ci koo xamante ne dafa tas sëyam ngir jëkkëram am jàmm mm-hmm. allahu akbar ngir jëkkëram continuer dund mm-hmm. ndax ki dem ba ne la toogal boo jurul di nga dem ki dem ba ne la toogal maa ngi weexal lu mu am app naa ko ba sama sërum jër laaj mais kooku dafay jar nga dem mm-hmm. mag ñi am na ci maire yoo xamante ne dangay goromante ak ñoom ñuy dem bay summeeku ci sa kanam di la ñaan yàlla di la def yenn yi maanaam am na ci mag ñoo xam ne dañuy summeeku sa kanam yow jeeg bi pour tasal la pour yàq la subxanallah. loolu mooy tojal gis nga gis nga ndaw si bi muy ñëw dafa fekk ci loolu laa naroon jëm am na fi jéeg joo xamante ne. Mm-hmm. kër ga moo nekkoon nen bu nëb. Mm-hmm. mu ñëw dugg ci kër gi ñu jiñ ko lépp ndoy jëlal parce que micro baax jërëjëf waaw ma ngoog waaw léegi léegi lii mami man dama tiit de tiit naa nag lii mami wax moom loolu loolu yow magum jëmm nga ñëw mu jaral la waaw nga nga dindee ko ci kanamu xale bi pour tojal ko barki de barki dem ma benn xale waaye ëllëg du añ du reer waaye mbokk yi nañ ko sédd bu baax borom ji benn xale bu jigéen mi ngi naa ma dama bëgg ci bëgg ci benn sëy mais sama yaay nanguwul man ko sëy bu yaay yaay nanguwul tas weesagu ca tas weesu ca dëgg la man ko jëlal loolu nga nga nga dem nga réfléchir ci li ma la wax mm-hmm. moodu moodu yaa ngi nii. Mhm. takk ay soxna yoo xam ne euh, consommé guñu mariage yi maire tas nañ sëy ya te dara am amagul. te seen jëkkër ñëw tas nañ ko ndaw sa jël nay bagaasam ba dem. yàlla man a muñ. kër yaa ngi yëngu imaginer sa sa yaay di la woo nga nekk Italie sa yaay di la woo sama sa jabar def na lii su ngoonee sa sœur woo la te li ma gën a metti sa sœur day nekk ca këram di sëy sëyam de ñëw di régler ci sa kër. delluwaat ca këram. waaw bëgg jàmm këram ñëw di yëngal sa sa sa kër frère. tout temps yaa ngi yëngal sa kër frère mais loolu pour lan la pour lan. xam nga yëf yi bu yàggee liggéey. Mhm. nit du xam naka lay defee. Mhm. ndax daañu la wax téyeel sa mag danga koo war a téye. Mhm. téyeel ndey danga koo war a téye. ña nga bokkal danga leen a war a téye waaye ku ñaan itam na nga ñaan yàlla bokk ku baax. parce que bokk ak ku bon musiba la mbugal mbugal mbugal rawul loolu. liggéey waaye tamit gis nga jiiti tubay la kenn mënta moytu. jiiti tubay jiiti tubay jiit ju dugg ci tubay boo ko solee mu fet la fu la neexul <laughs> daf ci am fami yoo xamante ne nii baleen fa te dem ci ba ngay amit tànk maanaam daw lu ko may ñu yàq sa àdduna dëgg la maa ngi lay wax léegi maire boo xamante ne goro la ci kër di summeeku ba set ci kanamu gorom ngir ne da koy tojal mhm. naan maanaam demal bàyyi sama doom dimbali dañuy summeeku sa kanam dama dama ko bàyyil ba émission bi jeex ma <laughs> expliqué. waaw parce que man nag dama bambarawee dafa am yoo xam ne. <laughs> dañuy summe dooy xam ne li may wax dañuy summeeku sa kanam ngir di la tojal. Um loolu day tojal xale dalay um <laughs> dalay yàq mais danga nga laal fu am solo. Mm-hmm. mooy dugg ci góor mu xëy lam amoon amatu ko. waay man dama gis koo xamante ne dafa tas sëyam ndox bëgg jëkkëram am jàmm. dafa tas sëyam ngir ne feebar bi muy yëg ci yaramam la mënatut a yëg te wóor na ko ne fekk ngi ci sëy bi muy continuer di am jeeg dugg na ci kër indi fa jàmm indi fa teraanga indi fa mm-hmm. sutura mais moom mooy wëlbatiku ñàkk jàmm xanaa xamoo ne am na kër yu tas xam nga lu ko tas da maa teralul lan mooy teraanga ñetti tuy seeg ñaari paan benn xartum teraanga jooju la ñu njaag nangul li ngeen jël jëlal kii kii ci ligne bi xam naa ne njaak moom bés bu bés nag dafay baax ñu teb njaak il faut que ñu teb njaak asalaamaaleykum waaleykum salaam soxna su baax si ñu ngi lay ziar waaw kazaalika ma nekk noonu. 28 ans. Eh, ki bi dugg sànq génn daf maa laal parce que damaa njëkk a sëy ci kër gu mag. sama borom kër nekk si woon dafa tukki woon yàlla def na bu suma xaa am doom. mais ay xaritam ñoo ma sotal jour biñ may sosal bañ ne suba la appel la ñaw naa sama yére bay préparé dem appel bay defar sama bopp di defar samay njëkke yu ndaw seeni bopp. wala ma fekk fi may defaree samay njëkke ay boppam. ne ma dañ laa gis nga ànd ak benn waay plage yi. ma ne leen ma ne ko ba nga ma gisee ma ànd ak waa jooju plage yi noon nga maa ci comme yéen a ma ñaan si. Mm-hmm. waaye nit looy def te dëgguwul amul sens. Mm-hmm. ma jàpp ba seetlu ne ko bu dëggoo ci dogu naa nañ ko dëgg ma ci néegu yàlla bi. très bien comme ay ñu bay ñu daw ma porté leen plainte ndax bañ ma ci woon dara tata Eva. Mm-hmm. ndax gor boo ko tuumaalee rek mooy rey nga ko. dëgg la te man doomu làkk kat laa parce que laa. ah. te doomu aadama mhm. mën nga kaa xañ lekk ak naan dañ la ne mala boo ko xañee lekk ak naan saa du la ko muñal mhm. waaye boo ko xañee dàll bu dagg ak yére bu baax ak ñàkk am lal mhm. yooyu yëpp mu muñ ko su ma jëkkër boobu ji ki ma njëkk a sëyal jëkkëram dafa gaañu kii papaam dafa gaañu yaayam gaañ ndax xol laay waxee moo tax saa maa ngi juum ñu ngi lay déglu ñu ngi lay ko sosalee rek bu amee ku fa jaar rek dëgg la xale jigéen ñi sëy rek lañ bëgg mais léeg nga dajee ay njëkke yoo xam ne dañuy doy waar man de maa ngi lay waatal yàlla amaan naa beneen sëy ki ma takkaat transitaire na mi ngi may teral côté bu ne macha allah macha allah sant yàlla sama kër sama appartement manqué wu ma dara namu ma dara jéeg macha allah jéeg a ngi toog ci biir sëyam jé euh, euh, euh, kii jé mun kii mu mu kii ko mu moroomu jéegam mu ñee ko dëgg la bii nii lépp coono bu mag dundoon ci sama sëy bu njëkk ba mhm. maa ngi koy bànneexu fii ak jàmm ju sedd guy guy guy guy ndax jëkkër a ngi teral jabar boole wu ci duul du ci boole mer du ci boole feccee mhm. waaye kii daf ñuy teral daf may teral boolewu ci dudul ah, boolewu ci ñaar boolewu ci fekk parce que damaa tëddu samay waaj. yàlla day fay law la cat sama ñaanal fu mu toll ne ma diggante asamaan ak suuf. yàlla ah. bu la fa sa morom raw. Oh. te maa ngi gis ñaani te saa su ne daf ma naa bis bu ma génnee àdduna. Mm. ngay xam ndax ñaanu waajur am na solo wala amul solo. ak kay dëgg man ba may jëndal sama papa xar. tabaski di ko teral booba aw ma jëkkër dama doon liggéey di daan sama doole. sama jëkkër ji ma tàggool nag comme li Ndoye daan wax sànq góoru benn nopp yàlla nañ ci yàlla musal ndax jigéen jëkkër ji jël sa ndaw ah. bu ñu la fasalee war ngaa mën a mat mu jaral la nga dagg bi ñu ci Sénégal nga lijjant sa diggante sa soxna ndax amatoo yaay amatoo papa waaye boo matadee alalu ku sàggan li olof yaay naan ku farloo koy jariñoo bu ko farlu bu ko soree mm. moom da koy daal di yor mm-hmm. te defar ko waaye kama dajeel macha allah li may ñaan yàlla yal ma yàlla lafal cat laf cat yal na ma yàlla lafal cat macha allah yal ma yàlla di ko ñaanal nag ci ma yor nii di ko yàlla yàlla na ko yàlla kattanal mm, amiin waay suturaal ko oyofal ko yenn bi ku fonk ay waajuram la moom it dama kaa naw ci lu bari waaw boo ko doon tagg noo koy taggee noo koy taggee samay mag samay rakk samay doomu baay noonoo man ci loolu waaye macha allah waa ma ni ma ni waaw pour reetaan loolu tuuti boo ko doon tagg noo koy taggee parce que dama gis ne jékki dañu am yu ñu aay de mm. noo koy taggee kooku mooy soow pour la jéeri borom nag ak meew kooku kenn du moom kooku ku mu mayul nag doo am combat bi muy fii di ëllëg moo koy jiite macha allah mention spéciale alhamdulilah ñaan yàlla nag yàlla na nu yàlla jàppale amiin waay ci lu baax amiin te yàlla bàyyi ñëw suñuy sëy ak suñuy borom kër sëy rek la nu bëgg wallaay ndeysaan suñuy goro uhuh. parce que ku la jural sa jëkkër wala ki bokkal sa jëkkër boo sañoon benn xar xarma yàlla doo ko am waaye waay dégg naa dëgg macha allah sa njëkke bu la defee nga muñ ko rek dafa am loo seet. dëgg la sa njëkke bu la defee nga muñ ko wala sa goro. Mm-hmm. am loo seet bët dañ koy rus. Mm-hmm. ngal la nañ nu rusal. Mm. ñun ñi bàyyi suñuy yaay ak suñuy papa sànq tata Eva wax nga ko. Mm-hmm. dañoo bàyyi suñuy yaay bàyyi suñuy papa xooluñu ni kii géwél la wala géer la dañoo xool ni jullit la. dëgg la nga jëkkër te yàllaa tax. nga fa di dund di fa daj lu ne léeg-léeg ma joteeg moom sax wala léeg-léeg jëkkër joteeg jabar mu nëbb ko yaayam. ndax léeg tamit sëy bu amee kalaame kalaame bu ci baree day doon yàqu la cey waay doon ku góor ki dëgg la ku aussi loolu tamit dañ ko moytu parce mm-hmm. que chaque kalaame lu ñorul nga kalaame lu ñor nga kalaame lu ñor lu jar a wax bu wax jotee toogal ak say waay mbaa yow xam nga ne dootoo xale kii yow mii doo xale de <laughs> eh papa Eva dañu ma laaj vingt-huit ans laa am waa dootoo xale mais en quatre-vingt-six maturité maturité dikk na <laughs> ah, ah, ah. mais nag sant yàlla di leen ñaanal yàlla aussi. amiin parce ku ne xam na ni wax dafa metti dëgg la ngeen nekk ci télé bi di ñu jox seen xel ak seen xalaat di ñu dooleel di ñu kàttanal. yàlla na leen yàlla fay leen. amiin yàlla may leen wér ak gudd fan. amiin waay leen di gis dañuy gën a a am sañ-sañ. yàlla def jàmm. amiin nuyul ñu sow pour le jéeri. kii bu amee 58 ans may gàdda li ngeen gis nga ndoy baan da ngay def focus ci lii. Mm-hmm. xale jigéen ñi dañoo bëgg sëy de yàlla seede na da ngay tase xam nga li tax ma ne dañoo bëgg sëy lingeer du ko weddi yenn jigéen yi foo taseeg ñoom loo leen di njëkk laaj gis nga pour te yaakaar mooy yàqee ko mais da ngay jigéen boo ko ne loo njëkk bëgg mu ne la sëy la njëkk bëgg mais est kon bu doon sa sagolo kër googu boo fa duggee doo fa génn waay xam nga mooy doole bi gën a bëggunoo mhm. sëy dikkal dikkal ci yi ma neex waaw mhm. Mhm. ah xale bu jigéen bu ci bëgg sëy balaa ngoo timis nga ñoom ñoo bëgg di taamu. Ah. mu ñaaw ñaaw lu mu rafet am na ku ko nopp. waaw kale nopp lañ ñoom laa mani kaay kaay boo taamuwul boo taamuwul alal sax na nga taamu jikko dama lay tontu ndax gis nga bu ku mu neexoon dégg alxayri léegi ci 17h. waaw waaye léegi saay ka ngay bëgg tam du. waaw yëf yi daal dañ koy comprendre na nanu dem nanu dem régi ba noppi seetaan benn parti publicité daal di dellu si waat soxna yi am ngeen droit tànn leen ku baax tànn leen ku am jikko ju rafet tànn leen ku am mandargay jullit c'est important leneen lu ci nekk nag ñu xam ne teraanga àdduna la yàlla nu ko may ay ca leen ñu dem régi daal dee dellu si waat mbokk yi nag li ma naqadi rek mooy du ngeen nekk ci coulisses yi den ak ndoy baat ndax dafa am bés yoo xam ne dafa yeewu nee na daf ñuy wax li nga xam ne moom la xalaat donte léegi saay mu jàpp ñàmburam am na itam soxna bu def témoignage bu rafet mhm. nee na moo nunoo tudd turam bi tàggoo amee mook jëkkëram bañ na ba dafaa jël doomi jëkkëram te doomi jëkkëram lay gën a diisool ko doomi boppam mhm. te macha allah dara ñaawu ci mhm. maanaam daf nu bëgg a wax ci gàttal ne jigéen mooy defar kër donte nee nga nag ñun ci taamu lañu la ñu dëkk jigéen ñi soo gisee jigéen koo soo jigéen ay defar kër kër bu xaaba yi ñoom ñëpp a nga fa ay faro rab la ñuy la ñuy la la ñuy kii la ñuy la ñuy faj du benn rab waaw taamu taamu gu ku leen nobul dana ko leen nobul topp leen di leen fooye ba du leen takk ak ah, ay mettil àdduna nopp ku la nobul su góor ñii léeg laa la bëgg a xamal waaw dofu ñu de su foo jotee dañuy fo su takk jabar jotee ñuut fu baax ñu takk fa nee na sama yaaya a takkal sama sëriñ ma léegi nag nga naan Ndoye Bane trahir na ma fekk Ndoye Bane trahiru la de. Ah. Ndoye Bane daa xam ni baaxoo. mu bala mu bala dem wuti ku baax takk ko. Ah, ah. nga dem ci sëriñ ba naan dama am faru rab man daal faru ma am mu dem. <laughs> faroo am mu dem parce que far faroo dina dem faroo am mu dem nga toog nag. Mhm. toog nga toog ba am ay quarante ans quarante cinq ans amoo jëkkër. Mm. nga jiñ ko rab dëkk bi lu bari ñu koy jiñ ay rab du ay rab. kër goo xam ne histoire dongul ay coow rek. ci ci gàttal ñu ko rab yi fekk ci gàttal danoo amal ak rab yi. ci gàttal nga rab yi nag bis bu ñu maree ba. fépp ci dëkk bi que li la ci dëkk bi dafa bari. te du aray rab ñii la. mënoo nekk ci biir kër ga am meerof seytaane ne ci kër gay jaxase kër ñu naan kër gi daa am kër amul rab. yenn saa yi nga dem ci sa néegu wujju taal ko ñu naan kër gi daa am lu taal néegu jàmbur ba pare. ba mu ñu naan waaw ñu naan néeg bi néeg bi dafa am rab kër gi dafa am rab fekk kii taal néeg bi mi ngi ci biir kër gi ran nga ku dem fekk dem ci liñ nga fekk sërub jàmm nga xotti ko noonu kër gi daa rab buy xotti yëre jàmbur du ay rab rab waa ngi ci biir kër gi nit doon nit yaay di añandoog yow di inspecteur li ngay wax ni am na solo kat loolu moo fi am kër yi looloo fi am tey nga am xale bu bandi rek muy taal voilà am na yoo xam ne góor yi ñoo koy ñoo koy def seen bopp dañuy dugg ci benn kër yow kër goo xam ne yaa ngi fay doxaane chaque jour heure boo ñëwee bàyyi fa coow sooy ñibbi bàyyi fa coow soo fa ah. duggee jël jël fa coow yóbbu sa kër def fa kër koo xam ne coow rek la nga takk fa jabar jabar ji nga yóbbu ko sa kër sa kër daawul am coow nga jël soxna sa yóbbu sa kër yóbbu ay coow soxna sa nekk fa di tàppaas sa yaay di wax ak sa di def nakk su noonu sa yaay parce que da koo tàmm ci la juddu voilà jeex na mi ngi mel ni nga fekk kër guy euh, ab tàkk-tàkk rek nga jël nga jël sa sa sa journal dugal ci ba mu tàkk nga nga dugal fee taal beneen rek loolu rek la nit ñi nañuy xool ci li ñuy dugg góor ñi nañuy xool ci soxna yu ñuy dugg jigéen ñi nañuy xool ci jëkkër yi ñuy dugg kër yi ngeen di dugg nangeen ngeen ngeen na koy xool kër gu ne tekk mësul am benn coow su fa coow amee am na lu ko lu ko yëngal te mais di nañ bàyyi su suñ ta ut suñ tànnalee seen doom jëkkër euh, soxna seen doom ni ko yaay nag wax dëgg yàlla bëgg naa loola neex trop waaye sama doom bàjjen diw ji nga ma bëgg a may daal wala sama doom di jaay ji nga ma bëgg a may daal bëgguma ko mm-hmm. Nafi mii laa bu bëgg mm-hmm. ndoy baan takkul Nafi mi nga mi mi sama yaay bëgg ma takk ko ma dem takk ka ma neex indi mhm. maire bi day bañ kooko uh-huh. da koy du ko bëgg da koy bañ parce que ba takkoo doomu doomu ki ki ki nga bëgg mu takku du ko du mhm. ko may jàmm mhm. du ko may jàmm soo ko jëndee soo koy jëndal pour quoi góor ñi suñuy jëndal dara soo day jëndal or sa jabar wala nga koy jëndal dara pour pourquoi góor Sénégal léegi dañ koy dañ koy sax nëbb teranga gi waaw bu ñuy defal jigéen teranga takk sa jabar mhm. yóbbu ko sa biir kër te sooy mhm. def soo koy defal dara da nga koy nëbb pour ah. léegi dëkk bi metti na de ah, metti na loolu metti na lu tax nga koy nëbb metti na yow sa yow yaa ngi ci kër gi sampaa papa defal loolu lu ne mhm. <laughs> may ma takk jabar bëgg a defal lu ne sama soxna nga ne ku ma ko def pour la li nga wax day dëgg la waaw mais léegi nag loolu dëkk boobu nag léegi fu ñu jëm suñu jabar yi suñu leen di defal daal dañ koy nëbb injustice dikk na su ko defee mën nañ laa bañ a wax daal moo tax mais dañuy bàyyi ba nga dem da ngay bàyyi da ngay bàyyi ba nga dem ñun leen ñun la moom xam nga léeg-léeg yaan yi li ngeen dañuy tuddee tur ñoo ko dul yëg da ngay dugg ci kër fekk fa njëkkee jonge booba yaa ngi tudd Marie Gomis wala Marie Bambara ba ci yam ne foofu mën wala ku jëkkëram mën mu jàppale ko jox ko ndimbalu goro mu defanteeg waa këram ba xolam sedd ñu commencé di la néewal njaak yàq na dëkk bi hmm. yàq na dëkk bi ah, njaak di ah. njaak njaak nangul njaak nangul waaye hmm. njaak féewaleel njaak féewaleel am na itam yéen la rek ah ba tey ñun la yéen yow yëpp yéen la yéenay yéenay yéenay njaak yéenay nangu waaw ñooy ah <laughs> te ñooy gunge waaw lépp yéen la njaag daal tas na dëkk bi kon li ñuy def mbokk yi. Mhm. gannaaw ami ndaw moom gone lu Touba bi waa Touba jéegu Touba yëpp ñu ngi leen di nuyu jànku Touba ya góor euh, waxambaane yi ca Touba ak ñëpp noonu la de. Oh, noo ngi leen di nuyu di leen bëgg bu baax a baax xaadim jaxate waa Touba la ma ngay ñëw ñëw yi rafet. moom itam nu ngi koy nuyu waaye nag nañ leen dem xool reportage yu soxna Ami Ndaw mhm. ndax sunu xarit la sunu soppe la waaye mën liggéeyam tax na nu bëgg ko ay ca ci biir famille nag léeg-léeg moo am ci diggante ñaar ñoo xam ne ñoo bokk benn meen wala sax nag ñu bokk genn gañoo moo xam yenn saay jarbaat ak nijaayam amee ñu bëri nee na ñu jigéen ñi ñoom ñoo ko waral ndax wujje gu metti gi nga xam ne moom la ñu dëkkee subaak ngoon wujje googu mooy dem ba law si biir seeni ay doom. doomu bàyyi lay doon parce que ñoom dañuy viser loo xam ne amul parce que mooy wujj bi rek kay am kii wala euh, borom kër gi dem am benn bant feneen ñoo am bant waaw su leen yemalee yemale boobu rek su ko defee rek dee bu ñu nekkee xale mu boole leen ñuy waxtaan di dugganteeg di génnante ba màgg noonu rek noonu la ñuy continuer. loolu moom nit ñii dinañ ci masla dinañ ci def euh, pour rafetal mais sa c'est c'est c'est c'est ancré dans la tradition tey loolu ci yaay yi la ay doom baay dinañ déggoo mais à intérieurement y toujours un petit problème waaw te loolu ci toujours ci ci base bi la yaay yi ñoo koy waaw ñoo koy jëmbat xale yi màgg ci loolu ngay gis par exemple ci kër gi sa yaay ak sa seen ñaari yaay problème yi ñuy am xam nga yaay dafa jage doom donc bon am na yooyu gis boo demee ba màgg sax boo ko rappelé woo rek sa xol day bon wala mu metti mën nga maslaa nga am na ñuy maslaa doom baay normalement ah dafa war a dañ ko war a toppante maanaam ki nga xam ni moom la yàlla def moom mu jiitu ci kër gi nekk taaw moom ñëpp dañoo war a ñëw kii ci kawam tafu si ci kawam topp ci ginnaawam waaye nag ci kaw moom mi nga xam ni moom tamit moom moo jiitu moom tamit mu xam loolu ba pare di ko doxal. xam nga ñun jigéen ñi ñun dañoo gàtt xel na ma yàlla baal ci waxin wi waaw lu à chaque fois rek ñun la ñuy jiiñ daal ne waaw dañoo. waaw dañoo bari histoire dañoo def nii mais nag lépp rek lépp rek ci biiri mbokk lay xaj waaw lépp rek ci biiri mbokk rek lay xaj te ku nekk dem ak sa xel xam ne ku nekk mën nga am xarit bu bees waaye mbokk mu bees kenn mënu koo am. wax nag su feebaree nopp yi koy déglu moo war a wér coowal biir kër mën nañ koo lijjantee ci biir kër ga laataa ci ma di ca joti comme ni ko tubaab di waxee le linge sale se lave en famille waaye nag famille boobu suñu dogoo. ñàkk déggoo dara mënul tax jàmm am ci seen biir. am na waxtaan yu may génn dégg télé. Mhm. dama naan waxtaan yi moom. Mhm. waxtaani biir kër la. Mhm. ak waxtaani biir néeg. waaye yenn yi kenn waru koo génn télé sax. surtout ñu bokk benn deret. bokk benn meen. ay affaire yu donoog. ay affaire yu xëccoog. lu na def ciy am. te jaru ko. ki ko sàkkoon defar ko ba bàyyi ko fi. ah ndam ko fi bàyyee bu ëllëgee tamit. ñu nit yàlla na yeex. noonu lañ ko fi bàyyee rek. ki la gën a jege mooy sa doomu baay ndax gàcce gàcce biir néeg doomu nday koy faj waaye gàcce gàcce ci moom doomu baay koy faj te ku nekk sa doomu baay mooy sa mbokk tey boo xewle woon sa néegu nday ñëw te sa doomi baay ñëwuñu mook zéro yem moo tax daal man man doom baay dama koo fonk. famille bu ñu coowee dina dem jur loo xam ne ni ñoom seen biir bu woowaa duñu xam fan lay yegg ndax maanaam mën na indi lu ne daal mën na indi famille bu tas. mën na indi loo xam ne nii ñoom seen biir bu boobaa dina yegg foo xam ne nii ñoom seen biir du ñu xam nan lañ koy àttee. rafetul sax si waxin sakam doon si gis-gis ki nga bokkal ndaya baay nga koy yóbbu police ah, man pour man ndey ah, bu ma bokkee yow ndaya baay nga yóbbu ma police ah yaay sama premier noonu daal. bokku jëkkër taxul ngeen di ngiyoo ka ngaayo ndax kenn ku nekk ak sa wërsëg kenn indiwu fa sa morom kenn ku nekk bi ngay ñëw sa morom yëgu la yàllaa leen boole wërsëg kon ngeen mën a doon benn juboo seeni doom ëllëg ñu doon benn ndax ñii yoo ŋaayoo amul benn njëriñ surtout jamono ji ñu toll nii dafa jeex ba pare dara jaratu fi yenn yi. muy nag mag mbaa rakk jarbaat ak ndijaayam lum ci mën di doon ñun ñëpp jàmm rek lañ warul seq ci suñu biir ndax ñoo bokk te kenn mënul faxas looli wala nag nga dem bay sa morom àndandoo. doon benn mooy seen wareef di suñu wareef mooy li nga xam ne rek moom moo war a am ndax nag jàmm ci la lépp xaj su ma nekk. waay ay waay Ndoye Bane mbokk yi danaa porter plainte Ndoye Bane dama ko bëgg porter plainte dama xam ne kenn du ma ci jàppale waaye dama ko bëgg porter plainte ndax wéy naa ba tudd su subhanallah Ndoye Bane àdduna bi daa bare problème de ah, baax na ah doy na waar de dëkk bi yéen ni kenn mënees koo wax ci télé allahu akbar kenn mënu ko wax ah li ci réew mi lépp ku ko wax laay génn sa gémmiñ nga tëdd nelaw dëgg la li ngeen maa ngi doon wax nañu wax ci njaag tuuti Mhm. njaag jaxase na kër yi kaar. njaag moom deux semaines nga ko war a jël inspecteur inspecteur Ndoye Bane njaag nag nanu ko tem dañu koy tuddee njaag. Mhm. xaw ma tur bi lu muy doon ci français xanaa dañuy woo professeur massam ba mu wax ci waaye faaw ñu wax ci njaag ndax ci nit day dugg sa kër nga waroon koo mën a téye téye bu baax muy doom doomi gor nag. doon ko piir waaye daraam safatu la mënatoo sax kippi sa bët xool ko ndax amul lu mu la teralee ndax demul ca bërëbu lebukaay yi mu leb ñëw boobu moom damay def entre parenthèse rek daal di sànni sànni xeer sama ñaar ah. sama ñaari ay tànta waaw ak sama ay jaboon di jaay yooyu waaw waaw yaasu sekk benn mooy sama yaay <laughs> moo dàq nangu njàkk uh, abi abi Fadia waaw ma nga ca Gàmbi moom day ñëw indaale délégation bu boobaa uh, maire ba uh, am na gàngoor ñoo ñoo maire yàlla am na seenu gàngoor goo xam ne waaw kaar la ñuy dëgg duur ci ay walis dëgg la moom xam naa kuy takk na nga takk dem seen doom takk na nga takki seen doom ndaxte ñoom ñoom yooyu la ñu sawar si seen doom amee doom dinañ ñëw dinañ fa yebbi mën njaak nag am ko di ko def dara new ci waaw ñoom am sa teraanga gu ne gaañ na mhm. jàkkaarloog nga war a jàkkaarloog ngeen teralante parce que àdduna teral la teralante la jëlal maire pendoloo maire pendoloo benn ñoom ah. ñoom ñoom ku takk seen doom ah dinañ la yebbi la yebbi wax ma wax ma fu nu féete ma yóbbu sama càmmiñ ñi ña nga der yaa soo nga derkele waa abi faadi yaa nga gambi famille faadi ya ah. mère pendolo mi ngi HLM Grand ku bëgg a changer nit yi mm-hmm. daf ci am xeet goo xam ne ñoom ñoom bu dee ñoom la mm-hmm. ka nga xam ne ku jigéen ki mm-hmm. buy dem ku góor ki buy dem ñaani euh, soxna ay jigéenam dañu koy jàppale. Mhm. dañu koy yokkal ba mu bari te bu nu dikkee ca bërëb ba joxe seen teraanga boo leen joxee dara ñu fëggatu ne bëgguñu ci dara. dëgg la am na am na culture yee changé nit ñi. am na ba dégg naa nag bànjul gii rek. bànjul tam boo amee boo amee kile boo amee jabar. yow yaa koy dimbali yaa koy massalu yaa koy yaa koy toppatoo. Mhm. Mhm. am na waaye du tee nag itam jabar itam. Mhm. xam nga ndoy baan lu nu la ne wàccee nañ la ko baal nañ la ko. boo ko teelee def nangu ci loolu dafay daal di indi goree di. léeg-léeg sa benn sagar gi nga am sax. jox ko ka nga nekkal. dana def teraanga seen diggante. àdduna teraanga la. waaye bul dikk ne mënuma aw ma et li ci des sama yoon nekku ci. rafetaloo defoo dara kooku dafay indi ñaaw teef. ay nit bu ñuy ànd dañuy sekk teraanga. donte benn morceau pièce nga am di ko Mm-hmm. fu loolu tam am na ci solo am na ci solo dama ko kont mënuma laa may sama doom mm-hmm. yanu ko indi lu toll ni nit mm-hmm. ma may la nit mu jóge sama kër ñëw sa kër waaw ba pare mu am doom manaan kontaan naa ci doom gi mu am ajaratu baal nu àq waaye baal nu àq ah, kontaan naa macha allah lii ma c'est la première fois ma def ko. yokkal baat bi tuuti déggante bi gën a yemb. Mm-hmm. ma ne c'est la première fois ma participer ci émission. yàlla bu mu doon bu mujj waaye. incha allah dama toog rek sama yaram daw ci émission bi ngeen def. Mm-hmm. dama toog sama xel gis émission bi ngeen di def sama yaram daw ci. dëgg la. parce que man nii dama doon sëy. dëgg la. te sama sëy mën naa ne samay sama jarbaatu ci kër moo ko tax. allahu akbar. tey nag maa ngi naan alhamdulilah parce que yàlla bu la génne kii rek am na leneen lu lay jox loo xamante ni nga fàtte li la weesu lépp. jeeg bu ci baax. wallaay ndeysaan parce que parce que tey nekkatuma Sénégal tukki naa du ma joxe tuur du ma wax lenn parce que am naa fa bant te dëgg naa sama doom ëllëg chaque jour ci rafetal laa dëkk ba ma fa jógee ba léegi. Mhm. waaye man tata Eva sama bés bu sa piir man bu la def nañ ñu ko ma toog di muñ xale bu ndaw laa duggoon ci sëy ñu naan xaalis ko dugal ci waa ji xaalis ko def lii far waa ji jël retraite mhm. xam nga kon kooku jël retraite xale bu ndaw toog ci sa wet ba tey kooku xaalis séewu la ci yow mbëggeel a ko fay dugal mbëggeel moo la fa dugal sax moonte xale laa mënoon naa xoole leneen lu gën a raw samay bët mais defuma ko mhm. lu ne def nañ ko nag pour ma jóge ci sëy bi mën a tekk rek toog mhm. téye sama doom ji ma téye jàpp sama ñambur waaye guddi dafa jot tata Eva sama jëkk sama jarbaatu jëkkër fekk nga ma tëdd sama lal mi di ma bëgg sàpp Hmm. mu ne bërëb ci lal bi muy moom ma ne ko diw looy def sama néeg mu daw génn hmm. bi mu dawee démb bi mu dawee génn comme ku ma xam la jarul may nekk naan lii wala lii hmm. ma daal di tëddaat sama néeg boobu sama jëkkër nekk fa li ma wooyee sama jëkkër xaaju guddi wax ko ko sama jëkkër dafa tiit ne ma boo xëyee nga wax ko sa wujj parce que sama wujj boobu sama ñëpp la woon tante sax laa ko doon woowee ndax cofeel gi ma am ci ñoom parce que man jàppewu bi ma xëyee wax leen ko moom ak ay doom dañoo toog ne damay sos loolu lu ma sos la nekkul luy dëgg parce que bu doon dëgg la di loolu amee dinaa yooxu li tax yooxuu ma waaye ma ne comme noonu la te sama jëkkër nekk fi naa ne tekk xaar ba sama jëkkër ñoom mm-hmm. parce que ba tey ñoom seen yooyu ñuy def yépp mettiwu ma mais tata Eva bi sama jëkkër ñee dafa ànd ak ñoom hmm? waxul de mais ci jëfi ñoom rek xam naan dafa ànd ak ñoom mm-hmm. aw mbokk aw ma dara bu ma wër man kese ci damay fen mm-hmm. jour boobu laa gàddu sama doom génn sama génn sëy parce que dama ne lu ne mën naa koo muñ mhm. waaye ay fen sama doom du fa du fa du fa màggee dëgg la noonu laa def gàddu sama doom ba ni may waxante ak yow sama doom léegi xale bu góor la mhm. waaye nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que dama ne sama liggéeyu ndey rek moo may lu njëkk tey mhm. tey sori naa leen teewul maa ngi fekk ak ñoom jàmm tey laa gën a mën a fekk ak ñoom jàmm nag parce que jàmm laa ma seen tey laa ko gën a mën a seet ak ñoom. suñ mhm. ne dama leen a déglu ñu wax ji amee ba tey c'est la première fois may door a ko ubbi sama gémmiñ di wax. parce que à chaque fois damay toog sama xol di fees ma ne lii lu ne mën naa ko baal ci àdduna mais lii sama xol. Mhm. du ma ko mës a baal nga xamante ne moo a génne sama sëy bi. te lu lañ doon wax waa ji amatul xaalis bi ma dem ma ne ñàkk xaalisam bi te tey laay gën a dee ci sëy bi. waaye lii moo ma génne mhm. mais ba tey nag ñoom li ma génne sama sëy duñ ko wax de. dañuy wëlbatiku di yàq sama der rek comme ndax ni mu demee fekk na waa ji retraite am ñu ne retraite bi moo tax ma dem. <laughs> xam nga métti na ci xool waaye na maa ngi sant yàlla bu baax métti na lool. maa ngi sant yàlla bu parce que fi ma nekk nii maa ngi sant sant sama ñaari waajur. dëgg parce que dama ne lu ci am rek su ma liggéeyee ndeyam. dëgg la moo tax may sant yàlla bu baax a baax a baax. macha allah tamit ci seen émission bi kontaan naa trop yow Tata Eva tonton Ndoye Bane. Mami Diop moom nga xamante ne nii moom sama soppe la dama ko bëgg sama bopp. ndeysaan. waaw maa ngi leen di ñaanal yéen bu jàmm kontaan naa trop yow itam nga ne ci jàmm ma leen dégloo nga ne ci jàmm macha allah sama xol yàlla baax na wees nga lépp lépp paase na la rek li ci des lu yàlla xam nga wolof bu naan lu yàlla xam rek doy na ak ay dëgg mhm. Mhm. mami nanu mhm. nanu dikk ci ci jërëjëf jërëjëf ndoy baan ñu dikk ci lu yàlla xam rek doy na parce que yenn xeetu mbir yi inspecteur mhm. ah sunu borom rek mooy seede mhm. léegi saa yi dañuy sopp rek nga dem jëli nit ne na la seede mhm. waaye seede gi gën a mag ñun ñëpp xam nañ ne suñu borom la te am na mbir yoo xam ne doomu aadama mënu la ci setal yàlla rek lay neex mu wàcce ay firnde yi leer teg ko teg ko teg ko yëf yi mel ni télé leer nañ hmm? li gën a wóor de mooy sa diggante ak sa borom dëgg la ndax nit ki moom su neexee mu xarab wallaay su naqaree mu xarab dëgg la mbaa bu neexee mu gërëm bu hmm. naqaree mu xarab dëgg sëñ Bay Jaxate daf ne woon nag ki nga xamante ne bu seddee mu ñëw bu tàngee mu daw boo ko amee jarul di boo ko ñàkkee jarul di jooy nit ki na gëm boppam dëgg la gis nga ki dem bay mariage ak yàlla nëbb sab loxo day wees loolu papa Ndiaye loo Ndiaye ko daan wax dëgg la nit ki dafa am fooy toll sa mbir wékk ko ca yàlla mm-hmm. am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur kenn mënu laa dimbali kenn mënu laa dimbali akay dëgg waay borom bi mu lay sàkk tàgguwul kenn dëgg la bu lay may du tàggu kenn bu mm. lay xañ du tàggu kenn ah, mais bëgg loo yëkkati seedalee ko doomu aadama yi heure boo leen wanee ginnaaw ñu yàq sab der dëgg la waaye nag gis nga mbirum siif yi ci biir kër yi mm-hmm. maa ngi doy defoon nañ ci temi temi tem yaakaar ca rajo ba am na ci koo xamante ne passé woon na ci lexu magi jëkkëram mm-hmm. jël feer ñaas feer da koo ñaas mami mami mami la tudd mami la tudd sama ah. tërëndoo daf kooku dafa xamoon ne waa ji day jub si ci moom xanaa jëkkër ji moodu moodu la woon waaw mm-hmm. chaque jour mu koy jéem a def loolu waaw chaque jour rakku frère jëkkër ji da koy jéem a violé da koy jéem a siif ah. un jour mu fekk ko muy passé rek mu commencé di ko mu tàmm di ko raay rek ndaw si jël feeru feeru ku raay paase lex bi waaw da nga koy wutal mandarga bu mu yóbbaale nga ma doon bu ko defee nettali ba mën a leer coow li kenn yëgu xale bu jigéen mi mami la tudd maanaam coow li jëmul kaw oh. jubul kaw gis nga de lex ba ñu paase fin mi ndaw sa rek ak waaji moo ñoo xam ne mu demee coow jibul dara yënguwul waaye waaja gore na waaja dem na waaye ba tey bàyyi na ndax nee pat te gis ah, mais dina ne pat gis nga nag frère yi ci biir kër yi. Hmm. ak jarbaat yi ci biir kër yi am na ci jarbaat yoo xam ne seen yaay leen yónni. Ah. wala seen maama leen yónni ci biir kër gi. Hmm. pour ñuy xool li xew ci biir kër gi ñu leen koy nettali. dëgg la nee naa am na ci mère yoo xam ne dañuy tëdd ba guddi ba bala ñoo tëdd dinañ woo seen doom bu jigéen. fajar ñu woo seen doom bu jigéen maanaam na seen doom ba jigéen ba di sëyeeg lépp. maire bi ci boppam ci téléphone portable bi la koy réglé. ci yàlla maa la sànq su doon man la su ma gisee ne sa yaay bala maa tëdd bala ñoo tëdd mu mu woo la mm. suñu yeewoo fajar bala ñoo jóg lal bi mu woo la mm-hmm. dama lay tëggal raas rek leen da ngeen si yaag sa yaay da ngeen may liggéey loolee ni suñuy tëdd nga woote maire bi le temps xam nga mais jigéen soo ko mayee da que sa banditisme bi nag léegi saa yi dox de dafa am fu mm-hmm. muy baax non c'est vrai day régler ay problème non <laughs> sa yaay su may tëdd mu woote bala ñoo jóg lal bi mu woote waaw da nga koy tëgg raas ni leen yàgg sa yaay li ngeen lijjanti wóorul da ngeen may liggéey li leen sëriñ bi wax moom ngeen di réunion ni moom la lay laaj ndax def nga ko ah ah moom la lay woowaat na man di wuy indi sosol ko te xam nga dama la ci yokkal balaa mamee dikk mhm. jëf bii dañuy tàgg ñëw tàggatoo mhm. dafa ci am ñoo xam ne du ñu woowanteeg seen ndey filig joteew ñok seen jëkkër waaw mhm. te jë ndey bi du yàgg ba mu woo jëkkër ji de du woo borom kër gi de waaye waxtu boo dikkee yaa ngi koy fekk moom ak doomam ñu ngi accroché wu au téléphone du yàgg ba nu boole la d'accord nañu dimanche dimanche jotee nga jël sa doom ju ndaw ji nga dem seet sa yaay mm-hmm. sa yaay dolli la mm-hmm. dolli la nga dem forme mu formé waatee la formaté la def ci yow nga explique ko yenn yi mm-hmm. te yaa gis nga yaay day sot Mm-hmm. du lu xew ci sëy ba rek lépp nga koy nettali. dëgg la am na loo koy wax am na loo ko dul wax. Mm-hmm. soo ko waxee mu xelal la su ko demee nga dem toog do wat def doxal beneen doxalin bu bees. Mm-hmm. mais yaayu wengare soo ko yoree. ah mais sëyu wengare ngay sëy. génn goo ci coono. Ah, ko defee mais yaayu wengare itam bu la mayee jabar raajo bu jëla la may. allah kubar am na ci maire yoo xam ne dañuy tëggal mboyangaan seen doom. mboyangaan mooy. comme njugub bu am passeport ak visa Schengen. 3 <laughs> heures du matin ngay génn ñun la demal te ñëw bu fa guddee doom. waaw jàngaluñ la togg jàngaluñ la bale jàngaluñ la lenn ba xëy nag may la waajoo xam ne prêt à porter la. dëgg la doo dagg wëñ doo tapp bouton. bëgg laa sayal say bi ci téléphone lépp sotti l'homme de marindooy yi nee na nanu tàggoo tàggatool mu doon bu mu doon tàggat dem ak ñëw la rek dikk ak dem dem ak dikk tey fan laa war a tàggoo tey ëttu sëy bi man ëttu sëy bi damaa am kumpa yi yëndu la ñoo liggéey foofu dama ko am kumpa di ngeen ne wàcc ñu mais nag boo ko yëndoo yërndu lu am solo. macha allah ndax nag macha allah yàlla nga ñu fay suturaal. dëgg la ñu ngi defar ay sëy yu bare bare. macha allah dama la ko ñaan rek. yow commentaire zéro commentaire léegi tàggatoon. ñu ngi fay def ay yu am solo. waa ñu ngi lijjanti sëy yi. waa ñu ngi jàppalante aussi di yokkante xam nga lu tax. waaw sëy sa yaay du la ko jàngal. sa baay du la ko jàngal am na ñoo xam ne sëy sujet tabu la seen kër mm-hmm. du ñu la wax ni nga war a defee du ñu la wax ni nga war a demee du ñu nga war a dikkee mm-hmm. te bu dee nag faaris yi ndeysaanam dinañ la ko jàngal te amul dara lu ñàkk kersa mm-hmm. daray waxante ju dépassé wala dara mais dinañ la yokk ci yenn astuce ak leneen ak leneen ndax kër gu set rek doy na jaamu yàlla ci jëkkër allah di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen doo ci yokk dara Adja Ndeye Sénégal loo faaris bu baax ngi lay ziyaar tey wax magu ne loo dund doyul ak waaw da nga àggal yow nuyu yow tàggatool rek bu ma yàq ak waa ëttu sëy yëpp di jaale waat nag askanu yaa ba xarima sëy su sëy balaa moo am <laughs> da nga faa bëgg a dugg te doo déglu ma sëy looloo moo am audité leen góor ak jigéen moo tax ñu naan sëy waaw waa ëttu sëy boo xam ne ay jigéen yi kese la waaw kumpaag lay rey góor ñu ñu ñu nu ñu reyee góor ba tey di nga ne au revoir ah, tey man nii kër jinjeer fekk yaram mu naan ko crise cardiaque des fois eh, waa léegi joxal sa léegi xool takkal yow kii xam nga ku feebaroon ba feebar bi ba ko xam nga jinjeer deex lay wax xam nga jinjeer utu ba nan la ah. sa ndox ngay tàngal ba mu tàng nga tibb sa loxob jinjeer waaw cof rek ngay def ne ko pëy ca ndox ma sëpp ca sa tànki waay waaw am na ñoo xam ne loolu baaxul ci ñoom mën na leen a léegi yow léegi yow àggali léegi yow yow àggali euh, li ngeen gis nga nag moo tax ci yenn culture yi mm-hmm. li nga ne ndey du ko jàngale bàyyi du ko jàngale mm-hmm. dañu lay jox mag bu lay jàngal sëy mooy ci lay gunge sa néegu seet moo mm-hmm. lay jox yu neex mm-hmm. yooyu léegi nag dinaa fa dugal benn maire xam naa ne kan laa leen di yóndee yaay eh, yaaya jabaate wala déedéet maire bambara laa leen di yóndee ñooñu dañ lay jàngal ah non xam naa li ma lay wax ah noo ma yóndee lay nit soxna yi bu ngeen bëggee loolu connexion topp leen ma mi dañ leen wax fu ngeen di léegi tàggatool yow ñu ngi tàggu ñëpp di yaaya jabate mi ngi ree moom yoon na maire yi toppatoo loolu incha allah dina ko indi sama yaayu waaw yaayu ñeeño boobu waaw d'accord ñi ngi ñi ngi tàggu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu euh, soxna sa sunu sëriñ ba euh, sëriñ Modou bu Dieng. wallaay euh, nu mu tëddati te nga ko doon nuyu keroog. kan ci ki nekkaay euh, waaw ki nekk ci non yaa ki nekkaay koy jaale yaa awa gajaga waaw yaa awa gajaga nee na ngi lay nuyu lu bare bare bare nee sax mi ngi ñuy invité ca màggalam ga ci kontaan te am nañ yaakaar ne gis ngeen ci seen bopp dañ leen di sant di leen gërëm ndax gërëm li ñeel na leen yéen a baaxoo di ànd ak ñun yéen ay tax émission bi gën a jëm kanam lu ngeen yokk ñu jël kon bokk saa bu ngeen yeewoo du lundi au jeudi altine ba alxamis noonu la ngeen jàkkaarloog équipe bu Evatra inspecteur dooy baan soxna ma Mami Linguère Diop du ca yàq dara ak équipe bu xarañ bu ci ginnaaw boobaa nag da ngeen ciy am bànneex kon boog dañ leen di jox rendez-vous suba incha allah ba tey ñuy wax ba tey rek ci war lépp loo xam ne dafay am ci biir kër yi coow yi nekk ci biir kër yi du jeex waaye am nañ yaakaar ne saa bu nu defee pénc ba waxtaan pénc ma dana ci changer lu bare bare bare te ñëkk nañu ko moytu ndax ñëkk amul solo ku ci xuloog nit te namm ko baalu du yow yaa ko namm bu ci am benn gêne na nga ko jege ne ko mu baal la ak àdduna dara yombu dara yombul dara yàggul kon boo ko bu leen ko fàttee loolu mooy wax bi nga xam ne moom lañ leen di wax ku ci xuloog nit am envie ni ko baal ma ak jël sa téléphone ni ko na la baal wala nga mhm. dugg ci biir këram ni ko na la baal ak bu ko defee mu baal leen ngeen ànd wéy loolu mooy def àdduna remercier Lassana Djigali Monty Babacar Petit Ndoye Euh, on and off maak moom saabu ne dañuy raak fii ci plateau bi ma yëgal leen ko Eva benn cadreur boo xam ne TFM ki ma gën a laqal mooy mooy mooy on and off bañ na ba amul tur xaw ma turam wakaam la dëkk kon mbokk nuyu naa leen yéen ñëpp ñoom gañ siri fàttewuñu kenn képp ku jàpp ci émission bi ba mu baax ñu ngi koy nuyu Dieynaba Seydou Ba namm nañ la remercier également euh, sama salon de coiffure Fatoumata coiffure maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ndax tey dañu maa dëj par force di nga coiffé wu ñu nekk ci 648 56 may boutique ne nañ ko merci waaye nag madame Talla Gaye Padoua de la part de Papis Gaye jox nañ leen rendez-vous suba incha allah l'homme de Marindo yi xaw ma lan la may wax waaye xam naa ne régie xumb na jërë ngeen jëf merci beaucoup am jogomaay jërëjëf Mista Waaf fa dugg rek Mista Waaf moo fa dugg kon mbokk mbokk